moo génn àdduna li ma wax sànq rek loolu laay waxat mooy que que ni li Balla di yëg laa yëg maa ngi koy jaale Sa Thiès di ko jaale Aziz Ndiaye di ko jaale président bi di ko jaale Sénégal yëpp monde euh, lutte yëpp a ah. di ko ñaanal nag fu mu jëm na ko yàlla xara àjjana yàlla na ko yàlla jégalee bakkaaram waaw di wax Balla na muñ rek parce que ñun ay alal yàlla suñu borom lañ. waaw yàlla mooy xool li gën a bëgg mu jël ko te dañ koy dolli ko sant. ëmma ah. ñi ngi lay masaw di la jaal. Ah. ñàkk nga wéjur donte ah. bu jigéen la. nu ñàkk wéjur mel ci lutteur boo xam ne hmm. yaa ngi ci activité nekk ci yoon. waaw ñàkk waajur dafa métti jàmbaar. Hmm. parce que lu ñuy wax rek waajur bu góor moom moom sa alal. Hmm. loolu diine wax. waaw ki la moom nag moom sa alal wàññee ko war di nga ko yëg li bàlle di yëg ci xolam la ñu yëg suñu xol rawatina mu nekk champion du monde nekk international waaw danga ko baax ku am jom ku marqué empreinte am Sénégal waaw kon njëf lu ñaanu ko yàlla suñu borom dañuy gis chaque fois ama mm. làmb taxawaay bu mel ni bu amee dañuy gis mbëru làmb yëpp ñëw mm. bokk ak ki nga xamante ne moom la tiis wi dal mm. mu doon loo xamante ni képp ku koy seetaan day xam ne yéen a bokk ndey yéen bokk bàyyi kon est-ce jotul xale yi nga xamante ñu ngi ci ñu ngi ci suuf mm. di waxante loo xamante ne bu ëllëgee bu bis bu mel nii amee doo siggi xool sa ñu mm. xoolaat taxawaay bu baax a baax dëgg la mooy sama wax bi rek sport bu boolewul warut a taaxale mm. sport bu boolewul rek warut a taaxale ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñooy moyente xaalis duñu ay ennemi mm-hmm. ay adversaire lañ dañuy liggéey bu weesoo bu jeexee rek jeex na du dëgg ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla xam ne ni bàll yëg la ñuy yëg waaw bàlle ñu ñoo ñàkk parce que papaam ñu ñëpp la liggéeyal du dëgg waaw ñu ngi koy ñaan yàlla fu mu tëdd yàlla dolli bàll ak Sa Thiès ndax euh, donte wéyjur ku ne ñàkk ne mais yaa lan lay doon ci loo koy ñaaxee waaw ma leen di wax ñu yokk muñ rek hmm. parce que ñu ay ala yàlla suñu borom lañ hmm. yàlla bu koy sàkk tàggul kenn te bu koy jël du tàggu kenn hmm. moom rek ay buur te xam naa ni gën nañ yàlla suñu borom ma leen di wax nañ fu mu toll ni ñaan rek lañ ko deseel nañ ko yokk ñaan bu baax bañ ko fàtte. jërëjëf ñaan bu